dey def lu mën wax lum xam na def lu mën wax lu xam su ko defee rek bu tëddee dana nelaw bu tëddul dana dana dana feex bu tëddee nelaw bu tëddul feex moo tax Maodo indi nag burdu burdu bi li tax mu indi koy bëggul nit ña daje tiwaawoon di jëw waaw ndax daje fa di jëw ne ci deri jàmbur loolu la Maodooy bañ mu ne na kon nañu commencé bunt bi suñ ko commencé ba bisu gàmm gi ñëw ba bisu noppalu bi ñëw ñu noppalu ca ëllëg sañu gàmmu gàmmu gi buñ paree ku ne ñibbi ba déwee nit daan na wax ne mag moo xam ne genn kàddu la am ci wenn weer ci benn bis te ca lay wax lam fonk nee na bu sañoon ku mu am fekkee ko waaw Seydi Xaaji Maalik bu sañoon ku mu am danga ñëw ca gàmmu ga waaw ku mu am rek bu sañoon nga ñëw gàmmu ga ndax moo ko waxal boppam kon nag gàmmu gaa ngi noonu burdo ngi noonu burdu nag bi ko bu Muhammadul Buseyri di way da doon def tawasul ci feebaram feebar bi dafa metti lool lool lool lool léegi-léegi nag yàlla nattu la waaw léegi-léegi yàlla nattu la yàlla nattu ko nag feebar bu métti muy def tawasul ci njool màkk ndax moom léppam yonent bi la deretam ak yàppam ak yaxam ak yuuram ak sidditam ak lépp yonent bee ci daw lépp ba muy woy yonent bi nag ba ci fa mablaxul ilmi fiihi annahu basharun foofa la ko feewar ba gëna a nag mu xam mënatu dem bi mu daanoo nag xam foofu ci la yëg benn loxo buy raay bopp bi yaram wi di daw nekk yonent bi yonent bi ne ko loolu lu garaawul danga naan wa annahu xayru xalqillahi kullihimi sëñ Tuubaa ne ko danga waroon wax ne wa annahu doonuhu aqlun afkaaru gis nga suñu mag ñi amuñu morom xale yi xamul li xew rek waaye mag ñi amuñu morom xoolal mag muy gàgganti koo xam ni xamoo ko xamula bokk leen dere nga di ko gàgganti nee dafa dafa dafa dafa feebar rek waye manon na ne fa mablaxul ilmi fiihi annahu basharun wa annahu dunuhu aqlun wa afkaaru waaw gannaaw nak yonent bi gaganti ne ko ma noppi ci ma noppi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko moo ko فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه jërëjëf dégg eh, bi mu bi mu bi mu jeew loxo bu koy raay ne ko yonent bi bi ko yonent bi yëkkatee ne ko feebar bi métti rek waaye xam-xam yemul fi nga wax nee nga xam-xam a ngi yem ci ñu ne yonent bi mbindeef la xam-xam yemul foofu wa annahu xayru xalqillaahi kullihimi waaw manoon ngaa jël rek ne li tax ma wax ko mooy moo gën ci mbindee fi yàlla yi sëñ Tuubaa dafa dafa dafa dafa dafa dafa gëlëm waaye wa annahu doonoo aqlun wa afkaaru waaw nee na benn xel mënul xalaat yonent bi ba jeexal ko seetal ñi bind ci yonent bi ni mu toll kenn bokkul ak sa morom loo bind te yonent bi xaajul mu ne xel du ko jàpp ñi xalaat mënuñ ci dara dara dara dara waaw ca la ca la jógee nag way burdu bi nga xam ne kenn mësu koo gis ci la woyee burdu boo xam ni kenn mësu koo gis woy ko ba mu jeex ndaxit it ki tax nga tal ko talu ko moom ki tax nga sañ ko sañu ko woon looloo tax waaye bi burdu bi jeexee nag moo tax Seex Alxaaji Maalik jël téere boobu di ko def buur doom gis nga barina sikar yi ngay dégg avant ñuy julli géeyee ñuy sikar noonu loolu loolu loolu loolu ko fi indi Maodo ko fi indi zikar avant avant géeyee Maodo ko fi indi da daan wax ne suñu leen bàyyi nii ci biir jàkk ji mën nañ fee nekk di jëw wax na moo nit ñuy xeex ci jàkk yi nga naan lan cooki laa wax cooki waaw ak saagante ak a jëw di nelaw ci jàkk yi di lekk ci jàkk yi nit ñi xamatuñ dara dañoo faale loolu mu ne nag man man nag lu ma fekkee danaa ci def sama wàll suñ suñu wasifa euh, euh, timis ba pare mu ne acca sikar leen ñuy sikar di sikar di sikar ba julli jot ñu jóg julli suñ jullee ba sëlmal def baaxiyaat saaliyaat acca yo bi ci des gunge aji dee di sikar di dem Maodo ko fi indi nee na mën nañ di gunge aji dee ñëpp ne patt ñi nekk di jëw ñi nekk ci waxi caaxaan ñi nekk ci mbóosa ba tey loolu am na bu ñuy ñuy sax ñooy njëkk a jëw da laa ila waaye loolu laa ilaha illallah waa yow affaire bu nu mu demee ah, ah? loolu loolu du dëgg booy booy yóbbu ko dee dangay xalaat ne kii may yóbbu su ma ñibbee maa ci topp ndax malakul mawti nee na su ma duggee ci kër jël fa nit waa kër ga yuuxu may leen xamu leen li xew maa ngi dem maa ngi dikkaat maa ngi dem maa ngi dikkaat waaw kii dem di dikk nag bu demee war ngaa góor góorgóorlu balaa dikk waaw mu ne maa ngi nii di yóbbu kii su ma ko yóbboo damay ñëwaat kon nga bàyyi ko xel bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax a baax loolu loolu itam Maodo ko fi indi suñu sikaree ba yegg di suul di di sikar buñ paree joxe ñaan ñëpp tasaaroo jëw jeex na gis nga yëpp lu bari moo ko indi moo tax daan na wax ne gàmmu gi nag bëgg naa ngeen ñëw ci waaye nag ku ñëw ngir màggal si ñëwal waaye kuy ñëw ngir caaxaan si bul ñëw soo ñëwee woowu mala jëlu ma sa responsabilité responsabilité bi ma jël daal mooy ñi fi ñëw ngir baax allah azimu laylal wilaadati xisbatan ida lam yakun naxwal xaraami udulu waaw màggal leen guddi yonent bi bu fekkee lu xaraam du ci am mas naa dem benn gàmmu eh, ci dëkk àll yi la nag gàmmu ko dama fanaan ni ndax dama teel a dem ba ma demee ba Eh, ñu notti sibaar ma jóg di jàpp ma jaawale wanag wi ak néeg bi fekk tànki boroom gàmmu gi ak tànki jigéen ñaa ngi laxasoo boroom gàmmu gi ci boppam ak tànki jigéen ñi jigéen ñi xeesal bi ma xamal ni lii jigéen la ñu ngi xeesal ba ne batt ñu raxasoo ay tànk ma ne ko ah, xeesal bi dagan na fii de ndax boroom gàmm gi ndem moo laxasoog yi nii kon xeesal baax na ci yéen ma pare guddi ga jot ñu ne ma àcc ba bismillah ma dem borom gàmm gi nag moo mujj ñëw xam naa dafa yaakaar ne ci moom lay gàmmu waxu sax lu ca jëm parce que moom moo ko gisee noonu jàng na ba bëgg a dee war naa waar nit ñi nit ñi boo leen dajalee tudd yonent bi rek bul bul bul bul dugal keneen boo tuddee yonent bi rek bul dugal keneen soo tuddul yonent bi nag dugalal kenn waaye boo tuddee yonent bi bul dugal keneen waaw waxtaanee jikkoom waxtaanee njàmbaaram waxtaanee diggante mook ay nitam waxtaanee lépp lépp ngay waxtaanee diggante mook Aboubacar diggante moo Omar diggante moo Ousmane diggante moo Ali diggante mook Zubeyru ñu nga xam ne ku ci ne seedi na ci yow loo xam ne seediwu ko ci moroom loolu ngay waxtaanee nag su ko defee ñi nga xam ni ñu ngi jiite mbooloo ñu topp seen gannaaw ñu mën a roy ci loolu ndax bul defe ne yow mi jiite mbooloo da ngay wax lu la neex ci ñi la neex wax la la naqari ci la naan la naqari du noonu waaw du noonu da fexe ba da ngay fexe ba ñi la wër nga wax ci ñoom ñëpp jàmm gis nga bari na ku la wër xeebu lool mbubb ma tilim lool amul yére yu mu sol dara fekk na ñi nga xëcc ñu jege la moo leen ëpp cër ci yàlla fuuf asa an takrahu shay'an foo xayrun lakum fekk moo leen ëpp cër fuuf nit ñi nag liñ jàpp mooy mbubb mu rafet xaalis bu bari ngay joxe xaalis ñu neen way ak a baax loolu du baax tabe la problème am nga dox ca problème ba ba mu ba mu jeex te taqoo ca kenn newu la naa fex nga kooku am xel la baax xol a koy def xol mooy baax loolu mooy mbaax su ne diwa baax rek xol baa baax waaye fi mu ne buñ ne diwa baax ay ak baax fekk dafa tabe waaw dafa tabe